bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokk yi guddi tey gi mooy guddi fukkeel ak juróom-ñeent ci koor gi naafile tey gi juróom-benn rakkaa la muy ñetti salmal rakkaa bu ne fatiha benn yoon lixlaas juróom-ñaari yoon juróom benni rakkaa rakkaa bu ne fatiha benn yoon lixlaas muy xul wala waxdun juróom-ñaari yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.